waaw bi mooy machine biñuy défé hémodialyse bi donc euh, pour def une séance de dialyse donc euh, malade bi mu ngi ni d'abord mais au préalable il faut que am liñ wax un abord vasculaire Faut xamni ni fi la drat ji di mën a di ñëw ci machine bi donc lolu mëna nek un cathéter comme ni mëna nek cathéter. cathéter hmm? comme nii léegi wala mu nekk li wax une fistule artério-veineuse donc loolu chirurgie vasculaire lañ koy defee relier bi waaw boole veine beeg artère bi yow a nga ay sax daa comme ça ñu mën a génne sang bi ci organisme malade bi ci débit boo xam wala vitesse boo xam bu acceptable la donc sang bi machine bi mu ngi koy aspirer par l'intermédiaire de la pompe moo nekk nii di tourner

top ligne bi ñew ñew ñew ñew ba fi bu fekkee dafa am air bu ci nek wala li ñu wax ngelaw du du dem ci malade bi donc fi lay dess bu fekkee dafa na wara jall aussi fi fii am na fi ben capteur bu ñu wax ben capteur bo xamni bu ngelaw ak naree jall mom mo koy signaler pompe bi day daal di taxaw donc y a aucune chance pratiquement pour que ngelaw bi ñu injecté ko malade bi donc fi lay ñew genn fi bu naree jall mu téye ko sang bi nga xamni mom lañu raxas bu mu set daal di dellu ci malade bi

donc xam nga bu démé day lek day nan ndox boobu ak saleté yi di des ci biir organisme loolu moo tax poids bi di yéeg. donc ku am insuffisance rénale du tour ndox lu bari waaw man na bañ tour ndox lu bari ça dépend de la cause waaw man na bañ tour ndox lu bari légui bu ñëwé déchets yi nga xamné moy mooy des ci organisme ak ndox bi. supposons nit ku peser 50 kilos mu génn am 50 kilos prochaine séance bu ñëw mën na nekk 53 kg kilos kg kilos ou bu 52 kg kilos donc loolu topp ci 50 kilos yi pratiquement c'est de l'eau ndox la léegi bu ñëwee machine bi daf koy génne dañ koy programmer par li ñuy wax li yeef bu ñëwee nga programmer comme par exemple kii malade bii boo xoolee ñu ngi ko programmer 3 litres pour ñeenti waxtu waaw léegi 4 heures de temps yooyu ñetti litres ndox yooyu machine bi daf koy génne. Hmm? léegi am na yeneen paramètres yoo xam ne dañ ko ci dañ koy dañ koy dañ koy euh, régler waale tamit ci machine bi mooy wax lu ñuy wax sodium bi xorom bi li ñuy wax bicarbonate bi hein li ñuy wax aussi euh, température u machine bi température bi nga xamné mom la deret bi du duggé wat ci biir organisme bo xolé xoolee ñu ko def 365 ça avoisine un peu la température corporelle hmm? euh, ñaar lii lan la moom affaire bi. Euh, voilà ma ñëwaat ci lolu parce que dialyse pour mu am parce que nee la deret bi day duggé fi di génné fi di dem ci malade bi ci raie artificielle bi mais raie artificielle bi du dara ji rek moo fay jaar am na benn liquide bu ñuy wax jalisa machine bi moom moo koy defar calculer bicarbonate bi calculer sodium bi calculer température bi paramètre ko ba nga xam ni bu ñëwee lii la ñuy wax acide bidon acide lii la ñuy wax cartouche de bicarbonate acide c'est acide entre guillemets parce que ben liquide ba la boo xam ni un peu de potassium am du calcium am du magnésium am du glucose etc. cetera. non oh, en fait pas du tout du tout entre guillemets <laughs> voilà léegi moom bu jëlee bu jëlee ci ci ci ci bidon acide bi dilué bicarbonate bi moom tamit day jël fii jël fii jaxase leen. mu nekk liquide bu ñuy wax dialysa dialysa constitution bi en en quelque sorte c'est un peu proche de la, de la constitution du plasma. On essaie de réunir les conditions naturelles de, de, l'organisme. De ce fait, Dialysa Bob de nous nous Ce qui veut que dire que sans au malade bi ak Dialysa bi dañuy en sens inverse. saleté yi nga xamné mo nekk ci organisme malade bi li wax urée créate potassium day dem ci dialysa bi après génne fi évacuer ko

taal traitement d'eau bi parce que ndox bi nga xamné mom lañuy défé ñuy defee ndox bu sell la ndoxu robinet ndoxu robinet bi la mais dañ koy traiter d'abord dans la salle de traitement d'eau mu doga a distribuer ko au niveau des machines machine bi utiliser ko bolé acide bi ak bicarbonate bi mëna fabriquer jalisa boobu ma la waxoon tantôt. c'est un filtre à charbon li adoucisseur le day permettre calcium bi nga xamné mo moo nekk ci ndox bi ak magnésium bi bi nekk en excès du dem mu retenir ko. grâce au sel bi nekk fii am beneen filtre aussi lu ñuy wax des à sable mu ñëw ñëw beneen filtre boo xam ne nii 5 micron lépp bépp bépp ferñeent boo xam ne nii diamètre am wala dijaayam ëpp na cinq micron maanaam lu jàll fii lay des ci filtre bi après mu jàll ñëw ñëw fii ci osmoseur bi osmoseur bi defaraat ndox mi ba mu gën a sell.

dañ koy Il y a ce qu'on appelle une désinfection interne On bidon bu nek ci ginnaw désinfectant ci malade machine la désinfection interne ce qui veut dire que les malade bi nga ne mo fi bu dafa ak mënu ko kenn. avant ñuy brancher malade machine bi aussi dañuy machine pour désinfectant bu trace fa aussi mu tester machine tester tous les paramètres. pompe bi est-ce que mu ngi dox hmm? ni mu war a perte ndox bi par heure est-ce que mu ngi dox li ñuy wax UF horaire euh, est-ce que am na aire hmm? est que température bi normal na benn boo xam ne nii am na ci benn problème bu ndaw rek machine bi daf koy signaler bu fekkee loo xam ne nii mën nañ ko régler sur le champ. par la manipulation avec les infirmiers avec euh, les les techniciens qui sont là dañ koy def bu fekkee panne ba loo xam ne nag vraiment dafa jéggi dayo la machine boobu moom àla kulli alen jour boobu kenn du ci mën a jaliser dañ koy jël ñu teg ko heureusement am nañ ay machine de réserve ci biir ñu génn machine beneen machine ñu teg ko daal di woo technicien bi nga xam ni de la maintenance ñoom ñoo war a defal machine bi xool panne bi exactement lu mu doon bu fekkee changer pièce moo ci war wala leneen moo ci war aussi mu def ko euh, Waouh, au fait, c'est comme ça que ça doit se passer normalement. Parce que salle de dialyse, normalement, waruñu fi dugg ak euh, avec les tenues de ville. ñoo ngeen jox leen yére yi comme yi ma sol nii. dama non la non la war non demee. demeewul noonu demeewul voilà mais non la war a parce que vous voyez c'est les moyens qui font défaut. Hein? mais heureusement les draps sont là euh, oreiller yi ñu ngi fii ku nekk ak sa drap ku nekk ak sa oreiller bu fekkee dafa tilim yóbbu ko de ñu on ko ba set et puis dañ leen di conseils aussi ñu sol ay yëre yoo xam ne yu yu set c'est en coton ñu indi euh, pour respecter les conditions optimales de dialyse. d'accord amoo leneen loo ci. waaw au fait euh, li ma ci yokk rek mooy dialyse bi ñu tout vraiment pour nous concentrer. centre de un deuxièmement c'est le personnel qui fait défaut actuellement. le personnel vraiment fait défaut boo demee am na centre yoo xam ne 15 machines am nañu 20 machines mais ñu ngi liggéey ñetti par semaine lundi mercredi vendredi. parce que personnel ba fa nek mënul jël malade yoy yëpp ben ñaarel ba euh, ñu ñaax aussi suñu mbokk suñu mbokk yi ñëpp ko xamni ni da nga da nga da nga yegg dara ci sa yaram nga dem ci nu mu gëna gaawé nga dem hôpital bu fekké ni insuffisance rénale la du fekké da ngay am insuffisance rénale ñu la ata jalis déedéet mën nga am insuffisance rénale dund ak mom ay ati at man nga fi jëgë sax té do jaar jalis parce que l'essentiel moy nga am suivi bo xamni suivi bu baax la ñettel ba ñeenteel ba mooy ñu moytu aussi euh, bana jël n'importe quel médicament les médicaments de la rue il faut les éviter hmm, les médicaments traditionnels temps yi dégg naa les tradipraticiens ñu ñi sanni xer ci lañu dëkk waaye nak loolu mom ala kuli al mom lu am la kenn kenn mënu mënuñu ci dara donc ko xamni da nga amé hypertension wala da nga amé diabète parce que ñom ñoo nek ñaari feebar yi nga xamni ñom ñoom ñoo ëpp lu ñu joxe insuffisance rénale ci aduna bi donc hypertension wala diabète ku am vraiment nga def tout nga am un suivi correct pour éviter d'aller en en dialyse. ben un point bi tamit mooy suñu mbokku à chaque fois dama voilà si aussi ñu de ko bu parce que attention, tension si ben affaire aussi jigéen Nous xam faire yaa ngi ci am am gën ngaa bari gisuloo fóot nga dem hôpital pour am un suivi correct booy def accouchement aussi nga defe ko fa nga ko war a parce que boo perte sang bu bëri durant la durant l' accouchement te ko en charge correctement mën na aboutir à ce qu'on appelle l' rénale aiguë mën nañ ko jël en charge mu wér mais ça peut passer aussi à la chronicité. mais est ce que ça vous arrive ngeen am ay patients yoo xamante ne ay xale oui euh, actuellement de filles les ni xale yi fi à peine 18 ans en général c'est des élèves des étudiants et pratiquement il y a toutes les catégories socio-professionnelles comme on dit en en dialyse c'est une bi rédaction IGFM ngi lay jaajëfal. merci beaucoup c'est à moi tout le plaisir est pour moi. chers internautes li ngeen leen indiloon tey fii nga centre de dialyse bi nekk ci hôpitalu Pikine ñu leen di jaajëfal j'espère que ñu bëri am nañ luñ ci comprendre ñu leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous très prochainement ci seen beneen numéro sama santé.